ginnaaw bi ñu leen gërëmee ah, am nga nag vraiment lu ay di di njàmbat ah, li taxoon ñu bàyyi woon affaire grève bi teg ci suuf ba léegi mi ngi fi muy feebar bi ah, te it kenn boole ñaari jàngoro comme feebar baa ngi fi eh, jàpp naa ni eh, syndicat yi surtout G7 incha allah daañu gën a accompagner loolu nag tekkiwul ni dañuy jël revendication teg ci suuf. parce que revendication ba légui mi ngi dox ba légui aussi euh, ñu ngi koy ñu ngi koy faj mën nañu continuer di gissé di di di waxtaan ak ministère de l'éducation nationale ak yeneen ministres yi di faj euh, problème yi te du jar vraiment ay ay perturbations ñu ñu ñu muñal état bi vraiment ba euh ba ba feebar bi jeex su ko defee nag ah euh, yàlla mën naa def sa bla boba revendication yi bari jeex fi mais dal ñu leen di ñaanal encore une fois. ñu tegaa ñu continuer teg lépp ci suuf ba ba feebar bi jeex ndax yàlla may ñu mu def rentrée bu bees te ñaan aussi euh, avant 2021 feebar bi jóge fi